نعم الذي جعل في سل لنا بربه الجميل من ذكره واللطام نعم النبي ورسول نعم الذي جعل في سل لنا بربه ذكري ذكرا عليم هي انزيلا هدى لزيد تعلمي أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه بريد سحسرتنا والندم وكل شخص الحادى فيه وألم يجهد بتوباتنا هدى من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز قدا ذا عدمة من لامين باسمي وبعلامين هدى حاول اقوامي وهو الذي من أبار أن هو ما تدبر فيه عصى رب الورى أضحكة للغامي وهو الذي ثباتا فيه ولن يلتفتا دع مان يكن فاتا عند الشكر الأقوام

تفهم ذات صرفني كتاب ربي الكتاب بنذير ذلك الكتاب به علمت من عتاب rahmatullah mbokk yi jullit yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci suba ba léegi te jii nañ leen ko waxe ci bis bi nga xam ne moom la ñu doon fàttaliku suñu maam yu tedd yooyu di sëriñ bu soobe ak sëriñ saabu so ak mboolem seenu njaboot. dañ ko waxee ci suba ba léegi bi ñu xëyee ñu ngi jàng alxuraan ak euh, def ay ay bernde ak salaatu ala nabi ak ay xasida ci lañ koy yendoo ba ci takkusaan gi ñu def waxtaan wu am solo waxtaanu diine ngir fàttali ko indi woon thème bu am solo boo xam ne nii mën naa jëriñ société bi ginnaaw kaddu yooyu sëriñ bi it ci seen kaddu yu am solo yi mu wax. ginnaaw loolu mbooloo mi yëpp ñett àndandoo nañ ñëw fii ci armée li Mbusoobe fekk ci barabu sëriñ Mbusoobe mi nga xam ne ginnaaw lépp moo ko waral ndax moom mooy ki nga xam ne moo mag ci njabootu Mboussobé gi yëpp di seen kilifa ñoom ñëpp ak rakkam ja Serigne Cheikh so sëriñ Bousso bi nag moom lañ denc fii fii ñu ko denc di jàkkaam fii ci jàkkaam moom lañ ko denc ci kër Serigne Touba nekkoon fii ci ginnaawam ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Touba jugee na euh, jugee euh, jugee na Mbacke ba Mbacke Kajoor ñëw fii ci Mbacke Bawal ba nekk fi ab diir la yónnee woolu sëriñ bu Mboussobé ñu jëli ko naawel mi ñëw bi mu ñëwee nag la Serigne bi génn kër gi mu nekkoon jox ko ko. ñu dem sanc Darou Salaam fii sëriñ Bousso bi tey ñu denc kay moo nekkoon jàkkaam kër sëriñ bi tàmbale woon ci ginnaaw jëm ci ci sow bi jëm jëm jëm ci ginnaaw kon loolu barab bi mooy barab bu am solo nga xam ne sëriñ bi bi muy sanc Darou Salaam dafa rafaatale sëriñ Bousso bi Mbàkke moo tax fii ci armée li ñu koy am Bousso bi fee ñu doon defee ci Masaalikul Jinaan nga xam ne fa la sëriñ bi doon bindee euh, euh, téere Masaalikul Jinaan bu àndoo ko mbakkee Mbàkke Bousso moom it quartier Bousso bi lañ koy wax loolu mooy li am solo mbokk yi ginnaaw ni ngeen ko xamee bi ñu xëyee ci soo ba léegi yendoo ci bisu bi nga xam ne mooy bis bi doon fàttali ko sunu maam Serigne Boussobé ak rakkam ja Serigne Sa ak mboolem njaboot gi yëpp eh, ci suñu kilifa gu baax di suñu waajur Serigne Amdi Bousso Bousso ànd ko ak mboolem mi ak magam Serigne Boussobé ak mboolem njaboot gi yëpp ginnaaw bi ñu dajee ci ci fi doon def jotaay bi ñëw nañ fii ci barabu Serigne Boussobé ànd ak Serigne bi Serigne bi dugg ànd ak njaboot gi yëpp ziyaare ba noppi kon nag dañuy diglu kaddu yi nga xam ne mooy kaddu yi soññ ak sant ak i yi nga xam ne moom la ñu Serigne bi di di dénk ñu mën ko fas yéene ko yóbbaloo bu déwén ak jàmm cañ fekk ko ci yàgg ko ànd ak moom. sëriñ bi nee ñu ngi sant yàlla bu baax. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di sant Seexuna Si Ahmadul Xadim bu baax. di sant sëriñ bu soobee Buso. ak sëriñ Saa Buso. mu ne waaye cant gi nag. mënuñ koo ñàkk jotal itam. mënuñ koo ñàkk jotal itam. sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ci jëfam ci bis bi naka jekkiit naka jekkiit bis bu mos a ñëw jëfam tàbbi na ci. mu ne mu ne waaye nag maamam yooyu mu koy defal ñoo koy fayal boppam. li ñuy ñaan mu fayal ko mooy mu yàgg fi lool. ànd ak wér ak tal. ñu bokk ànd moom. ñu bokk ànd ak moom. Eh, liggéeyal maamam ju tedd ja Cheikh Ahmad Cheikh Ahmadul Khadim. ak waajuram yu tedd ya. ak waajuram yu tedd ya. ak magam yu tedd ya. ak magam yu tedd eh, mu yàgg lool. te mu yàgg lool. te mu añam benn dog. mu ne ñu ngi yeesal suñu pas-pas ak suñu njëbbal ci moom. xam mu ne mooy lam daan wax rek. mooy suñu royukaay. te mën na sëkk royukaay liñ koy ñaanal mu ngi koy ñaanal mu yàgg fi la ca des nag nee na moo koy fàggul boppam la ca des buñ ko ñaanalee wér gu yaram ak yàgg fi la ca des nag ah, mu ne ñaan du doy de waaye moom sëñ bi moo ko fàggul boppam mu ne topp na ñu war a topp ñëpp ñu doyloo ko baayam bi ko xam ne mooy waajuram Cheikh Amadou Basir ak bàyyi taxam ya ak magam ja si Amadou Moustapha Basir eh, ñoom ñëpp làq na seen ngërëm ñëpp ko doy la woon waaye waaye lañ ko doy la woon ku ne xam na ne matal na ko sëkk fii ñu toll ku ne xam na ne loolu matal na ko ginnaaw bi ñu ko santee moom ñoo ngi sant kuréel ak isbu tarxiya kuréel ci njiital sëriñ Yuusufa. ci njiital sëriñ Yuusufa. ginnaaw bu ñu ko bu ñu ñaanalee suñu aatu. ginnaaw bu ñu ñaanalee suñu aatu. moom it wala ren lool. ñu bokk di ko sàmm ba mu bokk ko sàmm ba mu dem. sëñ Yuusufa wuutu ko. ci kutaay loo xam ne sëriñ bi ci moom moo ko tànnal boppam. te li tax mu tànnoon ko. xamoon na ko boppam. ba mu fi jugee rek. laajul kenn jël décision boppam joxañ ko ndax moom mooy sëriñ Touba. mu ne moo tax ab sampam a ñi ma àndal samp bu dëgër lay doon incha allah. Ah, mu ne yabaloon na ci taabal rond bi ñu doon def ci waajtaayu màggal gi ñu def jëf ci waxtaan wu am solo lañ fa wax yëpp mu ne moom mi seetaan na ko ñu jàll ko bi ñaari yoon loola dayoon na sëkk. mu ne xawoon na am kes sax di ko wax bis bi. Euh, xam naa ne lam la ma ko doon sama euh, sama yitte mooy seen yitte. na ko woon sama yitte mooy seen yitte. moom it mu ne suñu yitte mooy suñu yitte. mu ne woon suñu yitte mooy seen yitte. moo tax mu àggale lii. di ko jëf nag. jëf ju àgg moo gën a baax. mooy jëf ji mu jëf. mooy leen wóor ne moom ñu mu àndal. sant yàlla bu baax. Cheikh Ibra Fall. Eh, moo wane. moo wane. Serigne Touba. lu ko may Lamp Fall. lu ko may Lamp Fall. mooy jëf li ko mooy baabul muridina mooy jëf waaye ñoom it mel na Cheikh Ibra yombut waaye ñoo ngi koy roy nee na yoon moom jaaroon ñoo ngi ko ci topp te kuy roy ku baax bu yàggee suñ ko tudd tudd la fa ñu ne ñoom nag jumtuwaayu Cheikh Ahmadou Khadim la dañ rafet njort bu baax a baax yàlla ñu fekk at yu bëree bëri ànd ak wér ak tal sëriñ Bousso ya Bousso ak Cheikh Mamadou Mountakha ak rakk sëriñ Bousso bi yëpp ak doomam yi ak jarbaat yi ak sët yi sëriñ Bousso bi yëpp sët yi itam taxawaay bi rafet na lool ci mbirum sëriñ Bousso bi ak sëriñ Saa Bousso mais loolu sëriñ bi wax sëriñ Bousso bi Bousso nee Euh, am na barab bu ñu jox boo am na barab bu ñu jox sëñ Bousso bi fii ci armeel yi nii ci ci ci soowu armeel yi nii. léegi nag sëñ bi mu ne léegi sëriñ bi dana joxe ndigal. bu ñu ba xalaat ci. bu ba xalaat ci. kër gu nekk kër gu nekk. ñu eh, jox ko joxe ñu joxe fa am ndaw. ndaw loolee ca ndaw looloo ànd ak ndaw. ñu farlu ndaw la la la la nekk eh, ndigal la. ñu ca ndigal la sëñ bi joxe. mais ndax kat. Bousso si Amadou Khadim moo ko moomoon. rafaal ko nijaayam sëriñ bu soobe mooy barab bee fee suñ tubaa nekkoon fa jàkk ja bind fa téere masaalikul jinaan foofee suñ tubaa ko moomoon jox ko nijaayam sëriñ bu soobe sëriñ bu soobe rafaatale ko kon nag moo yabaloon nañ ko denc fii moo yabaloon nañ ko denc fii biñ ko fi dencee kon nag mu am kër jàkkaarloo bi mu am kër goo xam dafa uuf barab bi barabu sëñ Tuubaa bee nag. barabu sëñ Tuubaa bee it. farlu sëñ Muntaxa. xam naa la baayam la baayam la maamam defoon. sëñ Tuubaa jox ko sëñ bu soobe. la sëtub sëñ Tuubaa bi ñëw. la sëtub sëñ Tuubaa bi ñëw. farlu lool. barab bi nga xam ne ab fubalukaay la woon fawukaay la woon fawukaay la woon ak njàmbaaram mu baxee ba mu nekk sëñ Tuubaa. ak sëñ Tuubaa. ak sëñ bu soobe. sësoo. loolu de alhamdulilah rabbi alamin ndamam la moom baax a baax mi ngi liggéey bu baax a baax sëñ Muntaxa ah, waaw nee na taxawut de nee na moom waxoon na mi ngi dem nañ dem rek ànd ak moom incha allah ah, tabarakallah dama ah, mm-hmm. ko waxoon 2007 rek nee na mooy royukaayam mu ne ko mu ne ko yooyu moom it yaa may soññ mu ne ko kenn soññuwu la mu ne ko booba bi ñu waxante ak moom lii Cheikh Mamadou Lamine Baara mooy xalifa général des mourides mu ne ko yow ku roy ci yow sax ku raw ku roy ci yow deesu ko soññ waxuma la ak yow nag mu ne loolee nag ba tey ca la nekk allahumma amiin ñu ngi ñaanal ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom mu yàggal la fi ba naal yi nga naal yëpp nal ko liggéey nga àggale ko ca ànd ko kili sa kilifa yëpp mu mm. euh, ne suñu xalifa bi nga xam ne. bi nga xam ne. ginnaaw sëriñ Muntaxa. ginnaaw sëriñ Muntaxa. fi ñu ko teg fi ko teg. ginnaaw sëriñ Muntaxa. ginnaaw sëriñ Muntaxa teguñ fa kenn. mu bëgg nag mu bëgg nag. ku aju ci sëriñ Bousso bi. ku aju ci sëriñ Bousso bi. fu yor dara kat. Mm. waay yor dara. fu waay yor dara. ci sëriñ Bousso bi dong nga ko jëlee. ñëpp nag la ci yemale. ndax ndax. sëriñ Bousso bi fees dell. yàlla tibbal ko yàlla tibbal ko. yàlla baaxee euh, Bousso bi. yàlla baaxee Bousso bi. sëriñ Touba feeñ di soxna jaara bokk ak sëriñ Bousso bi ndey ak baay sëñ bu soobee moomu sëñ bu soobee moomu ak maye mënut a weesu li li su sëriñ Tuubaa bi mu duggee xalwatu jàkkee Daaru Xudoos gis na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaxaran mu ne ko li nga ñaan sama borom yëpp may na la ko waaye du mën a agsi ci yow ab yan bu diis la waaye du man a agsi ci yow fii ak sa nijaay Mouhamadul Bousso mi ngi ci àdduna feeg yaa ngi Touba it yaa rasulallah yàlla aaral na la ko ah Touba ak lu fi nekk moo tax ku baax ki bi mu jógee Touba dem sañ ci Mbàkke Bari ab diir diggu tabaski eh, sëriñ bu sooy bàyyi ko fi mu jógee Mbàkke Bari ñëw jaal si ko delluwaat waaw weeru tabaski dee weeru safar teru yan bi doog a muy yan bi nga xam ne li mu am lépp ci la ko amee muy ndaw muy ndaw yi ñëpp ñu loolu rek macha allah kon nag moom it nag mu ne sëñ bu soobee kon nag moom it bu ñu xoolee sëñ Muntaxa Cheikh Amadou Muntaxa ñoo ngi xoolee sëriñ bu mii sëriñ bu soobee mii turandoo boobee sëriñ bu soobee moom lañ koy xoolee ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool mu bëgg nag ku aju sëñ bu soobee te say ak képp ku bëgg lu baax ndax képp ku defal sëñ bu soobee defal nga sëñ Tuubaa mooy Serigne Touba moo ne sëñ bu soobee ndaba mi da cee duy ba mu duyee daf seet ne wicc mu duy ci man moo ñëw fecc lu ko ba ñëw fees dell ba nee na sëriñ bu soobee amul jenn doomam ju nekkul wàll yi moo xam góor la moo xam jigéen ak sa ndax nee na sëriñ bu soobee moo ko ñaana borom sëñ Tuubaa nee na loolu lañ ma ko ñaanoon suñ borom may na ko kon ku jëf ci mbiru sëñ bu soobee sëñ Tuubaa nga defal ko def sëñ Tuubaa sëñ bu soobee nga defal ndax doom yooyee doom yooyee doomam ya tàmbalee sëriñ Seexu Buso mooy taawam ba ci sëñ Omar mi nga xam ne mooy caatam lépp sëñ bu soobee la macha allah mu bëgg nag ku bàyyi ko ci ñoom ku bàyyi ko ci ñoom. ñu ñu piis ne bu leen ne piis nañ leen jàkk. nañ ko liggéeyal ko. kon it man wóor na man lu ci waay liggéey. waaw lu dana fa lépp lool yàlla lool. moo xam ñu ay ci la moo xam ñu la moo xam taalibi la moo xam ku bëgg lu baax la. kër googu suñ ci sooboo nañ ci góorgóorlu nañ ci góorgóorlu ndax sëñ Muntaxa góorgóorlu na ba Baay Faal miiree kër sëñ Touba gii nga ne ñoom ñaar dañuy xaw a jàkkaarloo kër ga sëñ Bousso bi la sëñ mu ne la ko sëñ Bousso bi joxoon la ko yàlla dellu si waat kër googu sëñ Touba fàttaloon kër gaa ngi nii moo waral mbàkk gi ci faluk sëñ Mountakha jërë ngeen jëf kon sëñ